les politiciens en costume cravate, ce ne sont ni plus ni moins que des voyous qui collaborent avec nos ennemis. Réveillez-vous. lii du politique man bu doon politique kenn du ma fi gis li muy révolution moo tax man nekk ci man artiste laa ba may commencé sama carrière ba léegi ñëpp xam nañ ma ci engagement bañ may xam ci engagement parti yi amagul mais parti bi dafa ñëw ma xool li ñuy doxalee dégg li ñuy wax mais lu sëñ bi maa ngi jégalu mais lii dafa dafa yanu maanaa képp ku bëgg lu yanu maanaa képp lu bëgg lu baax boo ko déggee da nga koy xam bu fekkee yoroo xolu naa fekk Ousmane nag yàlla moo ko aaral boppam saay-saay yi lu ne jéem nañ ko lu ne def nañ ko a chaque fois ñu jéem yàlla rusloo leen a chaque fois ñu dem wuti ay pexe yàlla rusloo leen parce que li muy représenté loolu la Sénégal bëgg loolu la yàlla bëgg mooy dëgg mooy décomplexé wu jël Sénégal fi mu nekk ñu yóbbu ko fi place am bi mérité donc maa ngi ci guddal Serigne Cheikh Mbacké